bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fi haadal yawm wa xayra maa ba'd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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ak poche yi def dara niñ koy baaxul defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci arisaala arisaala di jataay yoo xam ne li nu yonent bi indil sallallahu alayhi wa sallam ci la aju nu dooroon ko ci risaala googu nga xam ne mooy risaalatul islaam ak yaatuwaay beeg li ko tax a jóg yaatuwaay bi mooy mi ngi jëm ci kaafatan linnaasi waaw li ko tax a jóg mooy indil ñu texeg àdduna ak texeg àllaaxira jaare ko ci jàngal ñu yar yarnu jaare ko ci jàngal nu ak yarnu risaala googu lañ toppoon ba duggoon ci bind yu am solo yooyu nga xam ne ñu ngi jëmoon ci ak cat walla laab indi woon ci tomb ñëwoon ci sobe ba indi lenn ci li ñuy tàqaleeg sobe tabaarakallahu nu war a ñëw tey ci xadaawul xaaja xadawul xaaja baat bu am teggin la boo xam ne ñi daan jàngale fiq ñoo daan jàngale baat bi noonu tudde ko faj aajo bi mag ñi ñëwee fekk fuqahaa yi bind xadaawul xaaja mag ñi daal di tudde baat bi faj ajo tubaab nag toilette lay wax walla dem toilette waaw dem toilette lislaam di diine joo xam ne la ca dugaloon tubaab bi loolu ci la bokk benn tubaab bu jigéen boo xam ne li ko dugal ci lislaam loola ca la bokk mu ne diine joo xam ne day jàngale bay jàngale nu ñuy demee toilette nee jooju diine ëpp naa woon ginnaaw tubaab baa ko wax waaw tubaab baa ko wax ndax diine joo xam ne bu ñu ganee àdduna moo moom ba mu génn àdduna mu topp ko kontine waaye dem ba ci e, faj aajo demi toilette mu koy jàngale mu koy jàngale ñu ko jotutoon a jàng di ko fàttali ñi ko jotoon na jàng bokk ci thème d'actualité yi nga xam ne duñu xew yi waaw gis nga élection yu ñu jublu nii am na koo xam ne kii ren lay masa wate ndax wate yi day fekk mu am dix-huit te fekkoon mu am ko yële weesu njàngalem diina nun la mel njàngaleem diine nun la mel ki romb li nuy jàngale léeg-léeg mu ne mooy yéen ki àggagul ci li ñuy jàngale ma nga naan alhamdulilahi rabbil alamin ka ca noonu bu tax léeg-léeg ci arisala muy njàngale mi ñuy def par vendredi léeg-léeg ñu noppi xaasim mbay ca mbàkke yàlla na ko yàlla yokku wér alaaji mbay yàlla <laughs> na ko yàlla yokku déglu wax sa xalaat dañ koy faral di dégg léeg-léeg mu woote ca waaw tomb sàngam moom bëgg naa ci leerlu nga xam ne kon moom ngi topp waxtaan yooyu moo tax waxtaani vendredi ñu koy déglu daanaka mën nga ne weer wi benn yoon lañ ci am arisaala benn yoon lañ ci am euh, yeneen yi nga xam ni mooy am samedi ak dimanche aziwaaj noonu tabarkalla Euh, bu dee weer wi ñoom ñett ku ci nekk benn yoon lañ koy am vendredi samedi et dimanche arisala aziwaaj ak min ku nu si sunna suñu delsee ci bindub tey bi muy xadawul xaaj te mooy faj ajo walla dem toilette ki yàlla yónni woon bi mu fi ñëwagut am na num daan demee bi mu fi ñëwee te bëgguñu jubook sunu borom lu nu def mu dig jaamu lépp lu nu def mu neex ko dafa daldi jàngale yu am solo la jiitu ca njàngale moomam nee na kuy faj aajo bum duggaale ca toilette ya lu am turu yàlla kuy dugg ci toilette bu mu ànd ak lu am turu yàlla hmm? waaw lu ànd ak turu yàlla lu am turu yàlla kenn du dugg ci toilette di ànd ak moom lu dul mu nekk ci réew moo xam ne dafa bari ñuy jël yëfi jàmbur lu dut mu ne ci réew moo xam ne walla dëkk boo xam ne dafa bari ñuy jël yëfi jàmbur kon su boobaa may nañ ko mu duggaale yooya ndax lislaam du gàll nit lu mënut du ko gàll lu ko yàqal anas ibnu malik radiallahu anhu daanañu nettali mu wax ne yonent bi alayhi salaam dafa amoon ab jaaro boo xam ne jaaro ba dafa am muhammadun rasulullahi ginnaaw baatu allah daf caa am da ko daan bàyyi ci biti ginnaaw dafa am allah muhammadun aw turam la rasulu aw turam la waaye allah turu yàlla la ko daan bàyyi ci biti loolu mooy tomb bu njëkk bi mooy kuy dem toilette na moytoo ànd ak lu am turu yàlla ginnaaw ñun nag léeg-léeg ngis koo xam ne kii day takk yu mel noonu takk ci loxoom yu mel noonu waaw ak yu ni demee nu bàyyi xel ci loolu di bàyyi lépp lu am turu yàlla ci biti door dugg ci toilette ya lu dul nga nekk ci dëkk boo xam ne dafa bari ñuy jël boo ko bàyyi ci biti ñu jël ko booba lislaam may na la nga duggaale ko bu ñaareel bi mooy sori nit ñi ak nëbbutu seen bët yi sori nit ñi ak nëbbutu seen bët yi loolu moo waral ay toilette ñaare ñu koy soreele fi nit ñi nekk ba noppi di ko tëj mu sori fi nit ñi nekk waaye ba noppi di ko tëj ndax bu tëjewut nit mën naa ñëw defe ne kenn ne ko fi tijji waaye bu tëjee mu muñ mu mucc ci loolu waaw ay toilette wërta jege fi nit ñi di nekk wërta doon fu ñuy xool di gis waaw loolu lu am solo la mu ngoog saxaaba yi nettali nañ ci yu am am solo yoo xam ne ku bu mbooloo masaan ànd te ne ci àll bi ku soxla boppam day dem ba sori lool ba kenn séenatu ko léegi nag toilette yooyu sori lool te kenn séenatu ko ba kenn séenatu ko dañ koo jëla ca cori soreem googa indi ko ba mu jege muy taqaloog néeg yi léegi waaw muy taqaloog néeg yi léegi néeg bu ne nga dégg ñu ne dafa am salle de bain nangam nangam loolu tam jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax ci teggin yooyu te mooy sori nit ñi waaw ak làqutu loolu mooy ñaareel bi bu ñetteel bi bu fekkee mi ngi dugg bu fekkee mi ngi dugg duggagul ci biir bëgg nañ mu wax ñaan bëgg nañ mu muslu door a dugg ci biir waaw mooy euh, Anas daf noo jàngal mu ne yonent bi moonu jàngal ne képp ku bëgg dugg ci ay toilette na wax ñaan gii waaw képp kuy bëgg a dugg ci toilette na wax ñaan gii bismillah allahumma inni audu bika min al xubuthi wal xabaith nee kuy dugg ci toilette ñaan gii lay wax waaye du dugg ba ci biir di ko wax ci buntu toilette la koy waxe bismillah gaañ it bëgguñu ku ko ku ko ku ko yalu wax ko ca kaw a gën ba demee ci téere bu tudd fiqhu sunna li say saabiq te jukki bu njëkk ba xatum 31 wala 32 daf ko wax ne aljahru bi tasmiya wal istiaada mooy bismillah allahumma inni audu bika min alxubuthi walxabaith xëy na ki ko bëgg a mokkal bu ko dégloo tey dégluwaat ko yeneen ñetti yoon jombul dana ko mën a jàpp waaw bu ko dégloo tey déglu ko yeneen ñetti yoon jumbul dana ko mën a jàpp ñu baree bari nag ñoom jàppoon nañu ko waaye léeg-léeg nit du ko wax mbokk yi foofu pour taxaw fii boo daan déglu Jamaaluddin Shaybatul Hamdi Juuf yal na ko yàlla yërëm ci tomb bu tuddoon aalamul jinni wa shayatin nee na al jinn wa shayatin dañuy dunde li doom aadama yi def ci toilette ñoom soxla nañ ko soxla nañ ko mu nekk seen lekk soxla nañ mu ndox ma fa nekk nekk seen naan ñoom jinne yi moo tax boo leen dàqul ba ñu dem boo leen fa fekkee lu ne mën naa xew boo leen daqul ba ñu dem boo leen fa fekkee lu ne mën naa xew benn nga fekk leen ñuy añ nga déranger leen ñu song la walla nga fekk leen ñuy reer nga déranger leen ñu song la te jinne am na ñoo xam ne ba léegi ya'uduna bi rijalin min al jinni wal insi fa zaaduhum rahaqa waaw moo tax da leen di dàq boo ne bismillah ñu ne bërét nga ne allahumma inni audu bika min al xubuti jinne ju góor ja génn wal xabaais jinne yu jigéen yi génn xubtu jinne la xabaais ay jinne la xubsu mooy jënn jinne xabaayis mooy jabar ya ak doom ya ko defee nga ne yàlla maa ngi làqu ci yow lu tax ngay làqu nga ne dama bëgg mucc ci jinne ju góor jii ak njabootam gii ñoom bu ñu déggee loolu mu ngi mel ni dangaa yor benn bomb lacrymogène dóor ko ci toilette yi ñoom ñépp ñu tasaaroo génn su ko defee boo génnee nga daal ne xofraanaka mu jeex xofraanaka waaw maa ngi ci risaala maa ngi toll ci bunt bu tudd xadaawul xaaja te mooy faj ajo waaw ñeenteel ba kuy faj ajo du wax an yakuffa min al kalaami mutlaqan kuy faj aajo du wax du zikr ak ya ànd ci zikr du ko def du fay kenn nuyoo du nuyu kenn waaw lu dul lu munte ñàkk te su koy def mu bañ a génnee ay araf xanaa fëgg dara wala mu ne unhu wala yooyu waaw su dul loolu rek mën naa ñàkk su dul loolu mën naa ñàkk su fekkee day doon faj aajo ba tisoo li fam nekk bu dee sant yàlla it mu def ko cim xelam waaye bu mu wax mukk alhamdulillah te nekk ca toilette ya waaw kuy faj ajo na ko saabe daan jàngale koo ci ma sa romb boo ko nuyoo du la fay nuyoo hadis boobu aljamaa netti lañ ko ba mu des albuxaari abu said wax na ca waaw nee na ñaar waruñoo ànd di dem toilette bokk ca toilette ya nekkandoo ndoo fa waaw ñaar waruñu ko def loolu tam ca teggi na la bokk foofu daal bunt bi mooy kuy faj aajo du wax nun lañ koy tënke mooy kuy faj ajo du wax mooy ñeenteel bi juróomeel bi ci kuy faj aajo na jox cër xibla xibla mooy fi nit ki julli di jublu bu ñëwee dakaar am na ci barab bi xibla yi bokkut waaye foo mën a nekk rek fi ngay julli di jublu foofu moo tudd xibla wala fu ko daan wax penku ndax fala jant bi di fenke li ëpp ci dëkk bi waaye boo demee Madina xam ne du penku xibla la ndax Madina jant bi da lay jóge ndeyjoor jëm càmmoñ wala da lay jóge càmmoñ jëm ndeyjoor waaye du la jóge ci kanam jëm ci sa ginnaaw ñu dem almadina xam nañ ci dara boo dugg si ci jumaa yonent bi sallallahu alayhi jant bi da jóge jógee càmmooñ jëm ndeyjoor waaye du la jóge penku jëm si ci yow kon toilette yi mu mu sàmmoonteeg jublu xibla rawatina bu nekkee foo xam ne nekkul ci biirub tabax ñu ne kon bu mu jublu peng bu mu jublu xibla bu mu wan ginnaaw xibla waaw bu nekkee ci biirub tabax nag bay tëje loola lenn ci boroom xam-xam yi may nañ ko ci doonte fexe ba moytu ko nag mooy la gënoon waaw sallallahu alayhi wa ma nga doon wax di ko wax jullit yépp saa isaa sa ahadukum li xaajatihi fala yastaqbilul xibla wala yastadbirha ku toog ci yéen di faj aajo bum jublu xibla bum man ginnaaw xibla waaw bum man ginnaaw xibla jublu xibla juróom benneel bi ci xadaawal xaaja euh, mu wut barab boo xam ne su fekkee mi ngi faj ajo aajo ja du delsi ci aw yaramam di ko taq ba di ko indil sobe waaw aajo aajo ja du du delsi ci moom ba di ko taqal sobe loolu tam dañ ko ci bàyyi xel bu baax a baax a baax juróom-ñaareel ba mu moytum pax am pax mooy pax moo xam ne janaxa ko gas walla kañaa ko gas waaw janaxa gas walla kañaa ko gas mbaa salliir mbaa yu ni deme rawatina bu nekkee foo xam ne melut ni suñ dëkk melut ni dëkk bii di Dakar nga xam ne léegi kaaro yaak ñoom seen yooyu moo fi nekk waaye bu fekkee daane ca kaw ga loola mooy moytu pax yaag kàmb yaag yu nu deme waaye bu dee ci dakaar gi ak yu mel ni moom nga xam ne dañuy teg ab sées di ca toog loola war naa mën naa wuutu lële mën na ci musalit nit waaw eh, kere ba siit ba ñëwee dakaar ndeysaan ñëw ci guddi gi génne paakaam di di di gas karo yi ñu ne ko waaye lu xew mu ne bàjjanam moo ko joxoon gàllaaj mu ne ko nanga ko suul ca néeg ba waa ji siit boobu keroon ni mu sonne <laughs> waaw bëgg gas karo yi pour suulub téere waaye keroog ni mu sonne ndax ay xaw ma lu mën di xewaay gas ko yombul léegi nag luy xew xoos-xoosal ba sonn rekk bàyyi waaye moom moom séet ba ca la yëge ni mankat kon li ma sama bàjjan joxoon mënoon naa ñàkk waaw loolu xel moomu la ko yàlla jox man li ma sama bàjjan joxoon kon mën naa ñàkk ndax sama néeg ba mënuma ko cee suul ndeysaan yooyu am am solo la ci ci pénc mi bind yi ndeysaan juróom juróom ñetteel ba e, moytu yoonu nit ñi ak garam place yi ndax loolu fi nit ñi di toog walla fi nit ñi di jaar taqal ko bàkkaar la tilimal ko bàkkaar la ittaqul laainayni mu ne moytuleen ñaari barab bi nga xam ne day juri saaga day juri muulu waaw mu ne am na foo xam ne fii ko fa def dara ku ñëw muulu la ku def lii waaye su boohun kii waay keneen ñëw ku def lii waaye su boohun kii waay keneen ñëw ndax dafa am yoo xam ne ku ko def rek ku ñëw móolu la loolu bunt bi day yaatu dem ci kaw ñuy gas pax yi di lor nit ñi ñuy war wacc xotti xolliti banaana yi ci yoon nit ñi maanaam lépp loo xam ne koo gis rek nit ki yàlla na dee loola loola moo war a moytu ngeen baal ma ci baat boobu juróom-ñeenteel bi ci xadaawul xaaja mooy kuy tuur ndox mu moytu tuur ko ci ndox moo xam ne dafa taxaw maanaam fekkum ndox ñu taaj ko nga tuur ca ndox waaw fekkum ndox mu taaje nga tuur ca ndox dañu koy tere waaw tuur ndox ci foo xam ne it mën naa tis dem ci fu ñuy jàppe da yàqum jàpp mbokk yi juróom-ñeenti tomb nga noonu jeexul nag ndax tomb yu baree bari la ñu bàyyi ci xel bu nu ko dégloo benn yoon ñaari ñetti yoon incha allah indi beneen bind bu bees bu teg ci xaadaawal xaaja ñu ngi jéglu soxna yi di jéglu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew meeg réew yi ko wër ak seen fa yëkkate jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni i këyit bëgg leen firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab Serigne Fane jëleen ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bii di C3S yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.